aouzu billahi min seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman yaa ayyuha sibya la tastahilu alil huda wa bil bi istahilu fastahilu bil hifzi wa tilawa wattani bo majalisa saxawa kon mbokk yi nga xam si yéen bàyyi xel seen chaîne Touba Vision fii ci biir réew mi ak ci bitim réew mi tey ji ñi nga am mbégte di kaat ak yéen fii ci diwaanu Louga ci gaar bi fi nga xam si Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul fi la jaaroon ci 12 août 1895 dem ndar wuy ji tubaab bi naka noonu suñu borom jox ko ndigal ni demee ci géej gi dikk am ndam lu rëy wax dëgg yàlla képp koo xam si ñëw nga ci jotaay bi da nga gis ni jëm yi nga xam si ñoo fi nekk euh, di dundal euh, xasaayit di dundal alxuraan Cheikhul Khadim euh, nekkoon jëm jëm joo xam si macha allah liggéeyam yaatu na lool ba mbokki taalibe yi rawatina tout tànk yi ñëw fii di wane ndam li nga xam si amoon na ko li ngeen gis nag moom mooy ngontal tout tànk yi nga xam si waa fédération Majmahun Nurayni fii faa idi daane ni mbooloo mi nga daayira ànd di liggéey Sëriñ Tuubaa fii ci tund Njàmbur ñoo fi amal nag li nga xam si moom la tuddee ngortal tout tànk di laytaali bu si xasida bi nga xam si fas nañ ko yéene def incha juróom-benn fan ci weer avril euh, fee ci kër Mouhamed jàkkaarloog ko moom am di Fall ak mboolem Baye Fall yi nga xam ci ñi ngi ci fii ci Louga ak lu ko wër kon mbokk yi di fi nekk suñu dikk ak yéen ci lépp loo xam si jot na fi am ci ay élément euh, rawatina euh, ay interview euh, di jox di dañ ci kanam tuuti kon jërë ngeen jëf